Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues. Euh, monsieur le ministre Manglé ngi félicite nuyu di parce que ñun l'exploitation des ressources naturelles yi une démarche inclusive participative pour nous permettre de ñu moom ci suñu réew ñu xam fan la tëdde naka jëkk moy suñu wax te constance bobu ci lañuy inscrire duñu évoquer yeneen considération donte nak dama koy rappeler fu ma toll bu ñuy def opposition du ma nangu ni kenn gën na ma nekk opposante mais ci sama biir opposition boobu laay jëkk a nekk sénégalaise sénégalaise bu xam problème yi bu bëgg Sénégal boo xam ne du génn Sénégal te loolu laa jàpp ni ku ma jàkkaar lool fii mu toog ci banc bii sama nawle la parce que toogoon naa fi ku toog fii nag gannaaw bi ma fi toogee ba pare boo fi nekkee damay jàpp ne li nekk ci man moo nekk ci yow mooy ñun ñëpp ñu bokk bëgg Sénégal ñun ñëpp ñu bokk di défendre intérêt Sénégal moo tax ma d'accord ci objet yi objectif yi nga xam ne euh, décidé ngeen ko ci nouveau dispositif bi d'accord naa ci objectif yëpp notamment bu ngeen ne da ngeen di revaloriser gaz bi pour le développement de l'économie nationale ci économie nationale boobu surtout renforcement mix énergétique bi indépendance énergétique mais surtout monsieur le ministre réduction coût de l'électricité lolu boo pour lolu pour que 5 ans yi ngeen wax sax manam accès universel té bu boobaa électricité bi day parce que bu document yi question yu bari duñ la ko parce que bu la né ndax accès universel universel ndax dina wax nga ko man parce que su féké ne am une valeur ajoutée normalement lo xamné dañ ko suñu transformer gaz bi énergie euh, électricité war li nga ne la électricité bi di d'accord ci objectif mais aussi universalisation parce que dina en sorte euh, euh, l'électricité rurale bi té ñun ñu dëkk ci kaw gi électricité rurale bobu moy suñu problème euh, ma d'accord tam ci li ñu wax ci li nga dinañ défendre intérêt consommateurs yi monsieur le ministre ma am la participation du secteur étranger même sous la supervision d'un régulateur, ne me rassure pas. gaz c'est gaz Nous sommes comme dama que nga collectivité yi monsieur le ministre ministre abolir RSE. RSE c'est devenu obsolète partenaire sentir l'Union comme éradiquer la pauvreté créer des emplois à la limite étranger bu nous utiliser nous sous-traiter collectivité bi partenaire mu sous-traiter nous ñu transfert de technologie nous transfert de compétences, nous xam nous ñun sommes moom suñu ressource naturelle ñu xam le Sénégal ko gaz bi ci Sénégal Et monsieur le ministre nag loolu bala muy am am sama benn collègue bu wax léegi daf lay ministre bi mais man de comme yow yaa toog fii yow bi ma xam lay wax xam nañ la xam nañ la bu baax a baax fii nga dëkk xam naa sax fi nga dëkk xam naa sax fi nga cosaanoo mën naa yegg ca loola mënuma ko pour ñëpp mais yow mën naa ko donc jàpp naa ne lii ñu bëgg lii tey nga di ko défendre tey au nom du gouvernement sénégalais di nga ci def sa empreinte di nga ci def li ñu xam ci yow di nga ci def sa compétence bi nga xam ne moom lañ la xamee dañ la xam amna ko koo xam ne du la ko wax mais nangou na ni un sachant nga même bu ngeen amé ay contradiction dans la démarche lol dina jeex parce que di ngeen ko weesu parce que amna lo loo député bu taxaw fi wax la ko relever le défi ba liggéey liggéey bu tax ga rassurer ko parce que nous demandons qu'à être rassurés je pense parce que man li ma ci man lay waxal kenen je pense que man je suis de bonne foi je ne demande qu'à être rassuré et je ma rassuré dama me reconnaître Si ma ay crainte dama koy étaler je suis rassuré pour le gouvernement donte ne opposition là nekk donte ne d' accord ma ak borom gouvernement bi dinaa d'accord accord ne sama sénégalais nga li nga bëgg bëgg je vous remercie monsieur le président